bu spécial euh, tooyal suñu xol bu baax man sama délégation bi yëpp yal yàlla fay leen di nuyu sëñ Modou di ko jaajëfal di ko wax suñu mbégte ci teew tey fii ci këram ngir rek ñëw waxtaan feddale ko ci kóllëre euh, muy tànku ngërëmit ñu àndoon ak délégation boo xam ne euh, bokk na ci Moustapha Sarémé yor suñu école du parti formation bi may mën di yeey ak Mbène Faye ñi yor ñi jiite jigéen ñu parti bi euh, ak Djibi Gueye Ndiaye yor sama protocole doyen àll kan nga xam ne mooy mooy suñu suñu baay suñu mag euh, yàgg ci xeexu politique trop tamit ñu ne woon rek dinañ ñëw ci cadre euh, doxu jàmm doxu nemmeeku ak ndoxu gërëm yi nga xam ne ñu ngi koy dox dinañ ñëw ziar si leen. mënoon na gën a teel waaye ci niñ koy doxalee amul benn ordre de préséance dañuy seet rek li gën a jàppandi. ñu def ko su ma nee mënoon na gën a teel nag mooy euh, taxawaay bi ngeen taxaw fan yi ñu wees. te wéyal di ko taxawal bu léegi nag ci mbir mi nga xam ne am na ci réew mi te concerné ñu dafa am valeur symbolique bu am solo ci ñun du ne plus que tous les autres mais en tout cas amul benn bu ko ci ëpp solo li ko waral nag mooy bi coow amee da ngeen jóg spontanément xaaru leen donte ca gannaaw ga suñu xamee sorewuloon noonu waaye spontanément da ngeen jóg def la déplacement ñëw sama kër te damay faral di wax ni ci jamono yooyu ku ñëwoon sama kër rek dafa am dafa fekk am nga ay principe ak valeur yoo ndax kër goo xam ne c'était mieux gardé que la maison du président de la République ah <laughs> ñu teg ay camion ki ay char fu ne wax ma sax ku ñëwoon sama kër waaye ku duggoon ci koñ bi rek ndax léeg-léeg ñun Sénégal dañoo xaw ragal alkaati yi donc euh, ngeen bàyyi seen yitte yëpp mm. déplacé wu ñëw ñëw euh, apporté ñu seen soutien ak seen solidarité wax fa ay kàddu yu am solo pare biral ko ci biti ba ñëpp dégg ko yemul ci loolu euh, ngeen jëlaat seen responsabilité génn ci ay médias am taxawaay bu bu bu méngoog loolu loolu sëñ bi dama bëgg ngeen xam ni euh, on l'apprécie à sa juste parce que nit boo tollee ci épreuve rek ngay xam ñan ñooy sa nit wala ñan ñoo mën a nekk sa nit épreuve la woon mu doon génne nañu bàyyi ba lii yëpp jeex bu dee yàlla mu muccal na ko si jàmm euh, mu génn ci renforcer ñu dem xamante moom. mais da ngeen bàyyi ci digg épreuve bi ngeen def ko loolu nag bettuñu parce que euh, fa ngeen bokk li ngeen doon li ngeen gëm ak li ngeen di dund moo ànd ak loolu c'est le contraire qui aurait pu être étonnant encore que suñu leen gisuloon ni du tax ñu am ci jugement bu défavorable parce que mënoo gis ñëpp bëri na ñoo xam ne gisuñu leen te ña nga toog fu ñu toog di ñu ñaanal loo xam ne peut-être ki ñu gis sax ñaanu ko bëri na ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñu ngi toog fu ñu toog di wax ak nit ñi di ñu defendre ba seen xol jóg si kon donte gisuñu leen woon sax du tax loolu dindeeku waaye nag bañ leen gisee dafa gën a renforcer loolu te mu yoon ci moment yoo xam ne soxla woon nañu loolu parce que nit ñoo dëgër dëgër dëgër da ngay soxla su xeex jotee nga compter tes forces compter tes amis tes soutiens et tes alliés ñu fas yéene wax ni loolu jàpp nañ ko abadan Euh, mu war a doon nag laytaayu kóllëre gi nga xam ne bëgg nañ mu dox suñu diggante te doon loo xam ne day sax kóllëre googu nag li ko mën a dëgëral mooy du politique rek a koy lal moo tax c'est toujours un plaisir ñu ñëw ci bërëb bi mel nii mooy ay valeur moo koy njëkk a lal valeur nag soo koy seet fu ne ba romb nitu diine defe naa seetatoo valeur valeur yu dëgër moo ko waralal euh, yoo xam ne ci jikko la ak ci ay principe mm-hmm. yu jëm yëpp ci bëgg lu baax mm-hmm. bañ lu bon mm-hmm. bëgg lu jub bañ lu dëng bëgg dëgg bañ safaanoo parce que loolu euh, dafa mel ni ci benn niveau ci senegal tumburankel la fi waaw torop sax te suñu xeex yëpp nag ñun ñii ñëpp mooy nu ñuy def ba delloo ko si parce que tant que delloo wuñu ko gëw mu ni réew mi mun nañ koo tabax niñ ko bëggee réew moo xam ne boo xasee boo soxlawee ñëw taxaw ci kanam Sénégal bi lu leen nga wax ko buñ la ba ba jox nga nekk ci nax ak muusante ak wax loo dul def dige loo loo loo mënut jël loo moomut seddoo ko ak say mbokk yooyu yëpp c'est des contre-valeurs yoo xam ne bokk na ci li xëcc réew mi ci suuf yeneen contre valeur yi mooy jiital sa intérêt bopp ak intérêt ñeneen lu dul sa intérêt waa réew. c'est moo tax ñun toujours ñuy wax waxu patriotisme. Mm-hmm. mooy dañu war a fexe ba lu ñuy def rek nañu jiital d'abord intérêt réew mi. Mm-hmm. tey ci suba am na ñu ñëw doon def benn documentaire. Mm-hmm. ñëw kër ga ñu waxtaan tuuti. may leen soo gisee dañ man dama jàpp dañu war a déplacer curseur bi. mooy wàññi di wax wax boo xam ne dañuy tuumaal keneen. nga wax ñu ne diw moo ñu teg réew réew sàngam ñu ko teg puissance sàngam ñu ko ñoo ñuy imposer lii loolu tant que ñi ngi tudd ñu avancé dafa jot léegi ñu ne lan moo ci suñu responsabilité. c'est ça lan moo tax yow ñu ne la yaay président la république signé jot mu leer na ni lii du sa intérêt réew nga signé ko te teguñu pistolet sa bopp naanaluñu la saafara <laughs> nga dem signé loolu. kon nañu njëkk a régler suñu problème nañu njëkk a balayer devant notre porte. Mm-hmm. parce que Afrique nag am na ñeneen ñu koy def tey mm-hmm. am seen fulla am seen fayda di défendre seen intérêt réew mm-hmm. donc discours défensif bi dañ ko war a bàyyi mooy diw moo ñu teg diw moo ñu teg mm-hmm. dès lors que nañ pays bu indépendant nga te kenn mënatul jël ay kano ñëw ne la di nga signé mbaa ma la loo def ci sa bakkan nga ko teg kon loolu toujours ci contre valeur yi la bokk te gëm naa ni euh, ñi ñuy wootewu ñëpp ñi ñuy suñu royukaay yëpp loolu la ñu xeex parce que Cheikhul defe naa xeex ngir dignité nit ku ñuul te loolu weesuwul patriotisme ak indépendance tekkiwul da ngaa xeeb keneen tekkiwul rasisme waaye fexe ba kenn ku ne nu muy xoolee boppam mun laa xoolee noonu neewa mu xoolee lu ëppee lool de parce que ñëpp nit la ñu waaye respect bi mu jox boppam mu jox la ko mm-hmm. defe naa loolu ñëpp xam nañ ni moo nekkoon euh, le fondement même de son combat. exactement kon ñun ñi wootewu ci nañu ñoom suñu royukaay lañ ñoom la ñuy topp te ñu nekk ci géew politique bi dañoo war a dellu si valeur yooyu mooy suñu dignité en tant que sénégalais newuñu kenn mu raamal ñu waaye ñun mënatuñu raamal kenn loolu dafa war a dakk new ñu kenn mu jox ñu li mu yor waaye mënatuñu dàngu ñuy jël li li ñu moom ñun di ko yóbbu sama bopp la gënal nag tekkiwul ni bañ naa la kon loolu bokk na ci valeur yi may wax ak contre valeur yi may wax ñu am ci mbégte nag war cee mën a waxtaan ak jëflante ñu mel ni yéen parce que damay wax toujours ni ab am na lenn loo xam ne moom la politicien réussir ci réew mi xaw ma nag ndax tradition bu ñu hérité la mm-hmm. wala lu ñu fenkal seen bopp la keroog bu ñu jotee indépendance mm-hmm. waaye bokk na ci li ñu réussir mooy fexe nañ ba gëmloo ni képp fu koo xam dañ lay xoolee bëtu nitu diine danga war a dem toog fële ci jàkka ja yor sa kurus di werd waaye li xew ci réew mi ak ni ñu ko yoree ak ni muy doxee sa yoon waru cee nekk loolu gëm naa ni chef religieux yu mel ni yéen da ko démystifier da ko démystifier tey ku yaakaar ni mun nga tabax réew te ñi ëpp solo ci réew ma nit ñi wóolu leen yaakaar leen nga beddi leen teg fële da ngay nax sa bopp loolu mënul ne ba tax nag loolu ñuy tàmm di wax ñun nii suñu référentiel de base dafa am problème dafa jot ñu réfléchir ci suñu propre modèle modèle bi dañ ko hérité rek continuer ci mais mosuñoo taxaw seetlu ba xam ndax modèle bi méngoo na ak ñun dans le respect de toutes les couches, de toutes les croyances, de toutes les ethnies, de toutes les régions, de toutes les religions. mais ñu seet ñun lu méngoog ñun. ñu defaree ko noonu mooñee ko ba mu ba mu dëppoog li ñu bëgg ñun. defe naa ni loolu. dafa ànd ak ñu mën a nangu. ni les hommes religieux. du rek ñoo xam ne sapeur rôle sapeur pompier lañ leen war a doy. c'est c'est-à-dire ñun les acteurs politiques gannaaw bu ñu defee suñuy responsabilité bu mbir mi tàkk nag ñu doog a daw ne leen kaa leen fay <laughs> waaye en amont lañ leen war associé ci lépp exactement am na benn pàcc ci sama programme mm-hmm. en tant que candidat 2019 mm-hmm. nit ñi sax dañ koo essayé woon wëlbati am na ñu dem gis kilifa ne leen waa ji mm-hmm. yéen la bëgg xeex <laughs> mooy li ma ne il faut institutionnaliser les relations entre la religion et l'État surtout faut que ce soit tabou ni ñuy voté budget ne faju voté budget ne njàng voté budget ne lii pour tabax ay tali la lii pour léeg-léeg lii ñun ñi ñëpp soxla nañu loolu waaye nag noonu lañu ñu suñu ruux dund mm-hmm. ay jullit lañu ay catholique lañu nitu croyance lañu kon loolu it il faut ñun ñeme ko woteel budget mm-hmm. comme soo demee yenn réew yi ni mu amee woteel mm-hmm. ko budget ne lii dafa jëm ci lu war a suqali diine gi lu war a jàppale diine gi lii la ñuy jàppalee les lieux de culte lii la ñuy jàppalee les les lieux de formation mhm. ci diine gi mhm. ainsi de suite ñu budgétiser ko am mhm. am sax un ministère qui s'en occupe de manière transparente surtout ak li ma ne woon au plan institutionnel assemblée nationale doy na ci institution réew mel ni Sénégal yeneen yi ñu fi defal yépp amul benn njëriñ ci réew mi waaye mun nañu am beneen institution boo xam ne benn genre euh, majlis lay doon boo xam ne kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañu fay am seeni représentant mu doon une chambre consultative bu ko defee bu ñu nee am nañu pétrole ñu defar document yëpp teg teg seen loxo fii la ñu am pétrole bi quantité bi nangam la nii ak nii lan moo ci seen xalaat bu ko defee au moins dañu recueillir seen avis en amont ci ni ñu war a defaree mbir yi même si c'est pas un avis qui mais au moins dinañ ne dinañ ñoom dinañu xam ni génnewuñu seen loxo ci doxalin réew mi yooyu c'était incompris par certains pas incompris sax mais des gens sciemment ñoo ko wëlbati naan dafa bëgg a xeex lii dafa bëgg a def li waaye lan moo gën a rafet loolu soo buggee dëgg-dëgg ñu cëral jëmmal diine ci réew te yeneen réew di ko def muy dox kon loolu ñu mel ni yéen am li ngeen xam li ngeen doon te assumé ko ba mu mat sëkk waaye it lu keneen jàng jàpp nii jox na ko avance. ñu leen ñu ñuy wooyee intellectuel wala leneen. kenn gën leen ko jàng. ba pare ngeen dajale ñaar yëpp gëm ni nag da ngeen war a bokk ci réew mi nu muy doxe ñooñu en tout cas ñun sawar nañ ci liggéey ak ñu mel noonu. talal nañ leen suñu loxo. ci tey ci ëllëg ak ci gannaaw ëllëg. boole kook euh, bu dee it sorante euh, rawante nañ ci at gëw ma ni mu doon lu bëri. jàpp jàpp naa ni xaw nañoo bokk génération. dafa am loo xam ne toujours day concerné génération ñu ànd ceeg mag ñi ñu baax ñi ñu ñuy jàppale ànd ceeg suñuy rakk waaye dafa am benn responsabilité boo xam ne chaque génération dafa ko war a identifier xam ne lii ñun ñoo ko war a assumer ku fi nekkoon nag depuis Senghor euh, ba tey ji ñu jox la chance joxaat la chance fu ne nga jaar fa te résultat amul war ngaa mën a ne nag nañu effacé wu bàyyi ñeneen ñu essayé ndax peut-être dina dina soppi kon sëñ bi bañ a guddal di wax nii ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di leen gërëm di leen sant ci kóolute bi di gërëm sant ci soutien bi ci sama tur nag sama turu njaboot sama turu parti sama turu ñi may àndal ci politique yépp waaye mun naa ne sax am naa sañ-sañ wax ni ci turu sénégalais yépp nag parce que li fi xew ci fan yi ñëpp xam nañ ni du mbiru Ousmane Sonko rek sénégalais yi jóg yaakaar ni waa Pastef kese la Pastef amul lu toll noonu ci militant waaye Sénégal dañoo jog pour des principes de des valeurs tuuru sénégalais yëpp nag ñu ngi leen di wax jërëjëf di ñaan yàlla mu yokk leen ci bépp fànn ci lu baax euh, gën a dëgëral taxawaay bi lii nga xam ne mooy suñu bébét ñun ñëpp suñu réew te nag muy lu ñu war a def parce que fu ñu taxaw ne Sénégal mag ñi dañ fa ñaan ñaan nañ ko ba noppi kon su su dee ñi ngi am yenn gàllankoor ba léegi ñun ñii di dund tey ñoo war a xool suñu bopp. parce que yàlla du la jox lépp yàlla du la defal lépp yàlla du defal lépp am na loo xam ne yàlla xam na ni mënal nga ko sa bopp mu saa mu xaar ba nga def ko boo demul nag ba sës ba def li nga mën yépp ba naan matala nasrullah yàlla day toog di la seetaan moom it mhm. donc dafa am loo xam ne ñi ko waroon def def nañ ko te gëm nañ ni jeexital baa ngi fii ndax looloo tax Sénégal tàkkagul waaye pour ñu passer à l'autre étape mooy defar Sénégal ba tey tubaab mooy toog fële nu may def ba émigrer Sénégal et non le contraire ah loolu suñu responsabilité la ñun tey yomb na nag mooy delloo si valeurs yi deseelu jikko yi jiital suñu intérêt national bañ ngerbeeg corruption bu bëri bi yërëm nit ñi population yi am na loo xam ne buñ ñu ko tëralee ci diir bu gàtt mun nañu soppi réew loolu nag gëm naa ni dinañ ci ànd bu soobee yàlla te yàlla dinañu ci jàppale bu baax a baax kon ñu ngi leen di gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp nag euh, wax dëgg yàlla kontaan nañu ci ci ci dalal bi tooyal na suñu xel gis naa sax ñoom may mun a di fi di fi tasu Moustapha Sarr di yëngal ay tànk kon yàlla yàlla nangu daal yàlla na yàlla nangu jërëjëf kii nga kii nga seet day jàmbaar da nga koo xam ni léppam day seexul xadim mu am ci réew mi réew mi tam bàyyi ko xel sëñ saa su génnee ci télévision bu waxee réew mi ci boppam ma maa maa maa ngi nuyu sama mbokk yi ma fi fekk Modou bu géwul sëñ waaye kii toog daam taxawaay ci réew doon jàmbaar saa su génnee bu waxee ay waxam ñépp koy dégg lii ñu ko dénk mu yor ko jikkoom moo ko may yàlla nag ba muy takk yonent bi ci jikko la ko takk kon moom mii bu ñëwee ñii jàng xasida yëkkati xasida ci kanam yëkkati ko ci sa kanam te sa lépp di si xam mu sëriñ Cheikh Khadim moom ca Ibra Fati nga xam ne altine bii ñu jëm ci la màggal nga fekk si koo xam ni surtout sëriñ Touba la ah dama mën a wax ni nag yaay junni bi cinq baa ngi toog président réew mi bàyyi noonu la xel réew mi bëgg noonu la saa soo génnee foo wàcc mbooloo moo lay topp moo taxaw ci sa ginnaaw kon nag nii nga defal sëriñ Modou na na na nga yëg ni réew mi yëpp bàyyi noonu la xel kon nag ñu ngi ñaan yàlla taxawu la as goro ngi nii ab taalibe ngi nii ku ku baax ngi nii ku yiw ngi nii ndox nag buñ ci mënta naan mën na cee sangu mën na cee fóot nañ ko tuuri amatul njariñ daj nag ba dajatoo daj bay dajale nag ñàkkuloo ko dajale taabee xat ganax dañ ne ko nu kanam muus mel mënu jotu koo xamee ndax fii daje dafa xat taabee xat président <laughs> wàññi rek waaye c'est des façons des produits très importants